ñeen nit ñi en fait certains pensent que vraiment da ngeen commencé waxtaan ak pouvoir bi da ngeen am ay rapprochement boo seetloo même seen diggante seen alliés yi commencé naa yàqu maanaam après à la fin li bañ mooy ñu dem ba ci biir après regret am ci seen diggante seen xarit yi yàqu te alors que fi ngeen doon wut amu ko non xam nga regret mënu ci am parce que taxaw Sénégal bi muy participer au dialogue mhm. dafa toog mu analyser la situation xool fi nga xamante ni fa lañ toll ak risques yi nga xamante ni dañ koy jël nous avons estimé que dëkk bi dafa toll foo xamante ni war nañ dem ñu toog ñu waxtaan par rapport à la situation on a participé à ce dialogue heureusement pour nous le dialogue nous a permis de fair des avancées et pour vous dire encore une fois ñi nga xamante ni dañu doon reprocher notre position dem ci dialogue bi aujourd'hui je pense que ne amuñ lu ñu wax parce que la ñu doon xaar si ñun defuñ ko lañu doon xaar ci yéen defuñu ko defu leen ko mooy mooy lan exactement. mooy parce que on nous a reproché que ne ñun dañuy dem dialogue pour avaliser. Mhm. pour demander au président mu amnistier Khalifa Babacar Sall ak Karim Wade. Mm -hmm. et de ce fait mu amnistie waale ñeneen ñoo xam ne. accepter en retour que Macky Sall nekk candidat. accepter en retour que Macky Sall nekk nekk candidat aujourd'hui mm -hmm. au vu des conclusion du dialogue non seulement amnistie wu ñu kenn euh, mais également. on n'a pas permis en tout cas si conclusion yi au président de la République de pouvoir euh, se présenter à une troisième candidature pour vous dire que li ñu doon reprocher nous nous sommes restés sur des positions d'accord mais li ma nga xam mooy tey jii nii est que loolu noonu euh, bu ngeen toogoon am ci benn euh, benn kaddu unique doonul gën maanaam tey jii nii euh, l' opposition est, est divisée malheureusement te loolu yëpp dialogue bi xëy na am na lu mu ci def alors que on sait tous que benn bloc nga doon bu solide bu ngeen nekkoon et on sait que vous saviez faire des dégâts nga baal ci wax ci quand il le fallait euh, mais tey jii nii avec cette division est ce que euh, ki ci gën a tirer profit du ki ngeen am en face non xam nga l' opposition on parle d' opposition mais en réalité l' opposition est plurielle parce que ay parti ñoo ko bokk. sauf que vous aviez bâti quelque chose de très solide. ay entité taxawu yoo xamante ni dañu am seen autonomie. Mhm. et sur la question du dialogue je pense que les gens doivent être conséquents par rapport ak la posture de taxawu. qu'est-ce qui s'est passé le président dafa lancer appel au dialogue certains partis de Yewwi Askan yi ils ont certains leaders de mhm. Yewwi Askan Wi ils ont dit ne seen parti dialogul tey seen ca parti dialogul ëllëg dès lors que dans une même entité euh, un parti am na droit sans pour autant que la coalition se prononce mu ne man dew ma dialogue à partir de ce moment dafay nangu que ñeneen jël beneen position taxawu Sénégal en toute démocratie et selon processus décisionnel bi nga xamante ne moom moo fa am on a consulté nos bases et on a estimé que ne dañuy dem ci dialogue mais le texte lan la ñu waxoon par rapport ak appel yu mel noonu parce que bi leen di mooy euh, voilà que ne amu leen war waru leen am ay compromis compromission ak ak régime bi te tey jii nii bokk na ci ñoom li nga xam ne xëy na mu lañ leen mere par rapport ak waxtaan bi ngeen am ak euh, ci politique kenn bañu si Euh, ñu waxtaan trouver consensus mhm. et je pense que ne loolu mooy esprit dialogue mooy que sur des questions yoo xamante ni dañ ci am divergence naka la ñuy def ba trouver compromis et le compromis renvoie mooy li nga xamante ni moom mooy consensus compromission mooy en politique mhm. en politique compromission mooy nga renier say principes en retour de position de pouvoir tey aujourd'hui amul lenn loo xamante ni position de pouvoir la bu ñu jox taxawu Sénégal en contrepartie de principe yi nga xamante ni daf ko doon défendre et pour dire encore une fois gis nga décision wala position parti c'est pas la charte moom moo koy joxe dafa am li nga xamante ni moom mooy accord cadre mooy déterminer mode de fonctionnement Yewwi Askan Wi et le communiqué dafa viser tout simplement charte bi Mhm. mais charte bi c'est les grandes orientations mais boo demee ci accord cadre bi dañ lay wax ne la coalition su fekkente ni am na une décision bu mu war a jël il faut réunir la conférence des leaders su fekkente ni dafa am li nga xamante ni moom mooy ay divergence entre ay partis y une commission d'arbitrage mais yooyu yëpp jaaruñ ci bi nga xamante ni le président Ousmane Sonko la président Malick Gakou ñu ngi wax ne ñoom demuñ ci dialogue bi benn instance u Yewwi Askan Wi euh, dajewul mm-hmm. Mm-hmm. donc pour dire que c'est une question boo xamante ni ça relevait de la souveraineté de chaque parti mais est-ce aussi amul lu ngeen doon seetaan eh, l'autre chose mooy que aujourd'hui on reproche à Taxawu Sénégal d'être parti au dialogue mais waa Yewwi Askan Wi xam nañ ne am na yeneen parti Yewwi Askan Wi yu nekk ci dialogue bi oui mais parce que on sait tous que euh, les les béliers dans Yewwi c' est Khalifa Sall et mhm. loolu ñëpp xam nañ ko donc tey jii nii est ce que tamit yéen xam xamu woon ne lii tôt ou dina am parce que aussi euh, da ngeen a yàgg a xeexal Ousmane Sonko def ko leaderu coalition bi ba mu dem ba jël ay aile tey jii nii li leen arrivé est que amu leen ci responsabilité. li ñu arri non mais c' est à dire ñun bi ñu nekkee Yewwi Askan Wi nekkuñu woon di xeex pour Khalifa Sall ou pour Ousmane Sonko. dañu sauf que seen combat yu bëri c' était pour Ousmane Sonko xëy na actualité moo demee woon noonu fàtte seen bopp benn moment loolu nag da may benn puissance boo xam ne après da xam nga benn instant bu ñu bokkee mbir ku nekk da ngay fàtte sa bopp taxaw Sénégal bi Ousmane Sonko commencé am ay jafe-jafe mhm. fàtte boppam c'est investir pour Ousmane Sonko et aujourd'hui loolu ñëpp dañu ko war a parce que dañu jàppoon que ne il fallait li nga xamante ni arriver na à xalifa Ababacar Sall ñun ñu dressé wu contre ça pour que mu bañ a arrivé à Ousmane Sonko et je pense que aujourd'hui personne ne peut reprocher à Taxawu Sénégal mu dem en demi-mesure par rapport à ce combat-là. Mm. si c'était à refaire on va le faire parce qu'on se bat pour des principes. que reste-t-il de Yewwi Askan Wi euh, Yewwi voilà c'est ça Yewwi Askan Wi jamono ji maanaam vous concernant bokk. bon Askan Wi moi je pense que euh, dafay nekk encore une fois une réalité politique maintenant c'est une entité boo xamante ni def na ses preuves. et c'est normal que mu am dans le dans la vue d'une euh, entité comme Yewwi Askan Wi d'une coalition politique il peut arriver par moment qu'il y ait des difficultés mais il faudrait que tout le monde travaille à surpasser ces difficultés. Vous pensez par rapport à Yewwi Askan Wi moi je dis que Yewwi Askan Wi comme me disait quelqu'un mu ne ma Yewwi Askan Wi c'est un bébé à Khalifa Sall. oui di nga jur nit mu dem ba toll âge puberté dafay rébellé wu contre yow. c'est ce qui est arrivé Askan Wi mais et pour dire que Khalifa Sall nekk ci Yewwi Askan Wi je pense que ne njariñ la pour Sénégal njariñ la pour Yewwi Askan Wi sauf que est-ce que Yewwi Askan Wi noonu la koy gisee parce que on ne vous convie plus à rien du tout oui. les rencontres les kii bokkatu leen ko yëgutuñ sax li xew donc vous vous entêtez à rester ci benn kii boo xam ne euh, daanaka ñoom ils ne veulent plus de vous moi je dis l'apport de Khalifa Sall dans Wi ku nekk gis na ko mooy pendant tout ce temps que Khalifa Sall nekk Euh, conférence des leaders président de la conférence des leaders les contradictions ont toujours existé dans Yewwi Askan Wi mais il a su par son leadership mu gérer ko aujourd'hui il appartient à Yewwi Askan Wi de gérer ces contradictions yi nga xamante ni pour nous c'est circonstance. sauf que à la euh, Khalifa Sall à la tête de Yewwi Askan Wi y a aussi beaucoup beaucoup beaucoup de bruit de divergence coow lu bëri bëri ci liste yi am na sax loo xam ne dellusiwaat na récemment ak euh, la sortie de Mamadou Lamine Diallo par rapport aux responsabilités yi Khalifa Sall am ci rejet rejet liste bi. waaw mais xam nga Mamadou Lamine Diallo li muy wax Khalifa Sall lan lañ ko waxuñu ko mu dem déposer gi liste Khalifa. dafa doon travail pour établir ordre bi nga xamante ni moom la ñuy defar. maintenant ki nga xamante ni moom moo de mais xam nga. liste dafa sacrifier Ousmane Sonko volontairement. xam nga yow yow xam nga ne list électorale kan moo koy dem déposer c'est pas c'est pas le mandataire mm-hmm. kan moo doon mandataire Khalifa Sall. non da ko da ko defar rek liste bi jox ko. dafa dafa defar mais ñi doon defar dossier sax Khalifa Sall nekk ko fa donc pour dire que on pas objectivement. reprocher à Khalifa Sall rejet d'une liste c'est pour man c'est c'est un non-sens en tout cas fi mu ko indee sax débat boobu je pense que ñun dañ ko dañ ko dépassé euh, tey cii nii euh, maa ngi lay wax euh, avenir u Yewwi Askan Wi mm. nga jàppal ne bébé Khalifa Ababacar Sall la mais li xew comme divergence ak les autres li ñu leen di wax yëpp yëpp tey jii nii ça nous ramène aux différentes yi ko séq maanaam est-ce que vous êtes à votre place parce que yéen ay wax waxtaankat ngeen bu loi décidé dara da ngeen ciy tënk bu nekkul en votre faveur justice plutôt euh, gis nañu Khalifa Sall il a il a il a vécu il a subi est-ce que doo wax ne ay républicain ngeen. ay républicain ngeen mais ñi ngeen ko séqal tey ji nii boo seetloo ils vont souvent ci beneen beneen beneen beneen sens bi donc coalition bi am na ay fruits ci wàllum election mais ànd boobu noonu est-ce que réellement du lu contre nature comme ni ko ñenn ñi doon waxee dès le départ. waaw xam nga lu mën na parce que alliance politique. pour man li nga xamante ni moom moo koy déterminer mooy les circonstances dina am circonstance yoo xamante ni bu taxawee daf lay imposer wu nga boole. Mhm. loolu mooy li nga xamante ni moo créé Yewwi Askan Wi mais bu fekkente ni malheureusement dafa am je parle pas des leaders. Mm -hmm. j'ai entendu certains ñoo xamante ni ci coalition bi la ñu nekk di tirer si Khalifa Sall c'est parce que no pas cette culture politique parce que dans un phénomène. wala dans un processus dafay engendrer toujours li nga xamante ni moom mooy ay contradiction mais l'homme politique avisé l'homme politique bi nga xamante ni dafa am une culture politique il a cette capacité de pouvoir déceler ana lan mooy contradiction principal bi ak lan mooy contradiction secondaire nous avons des contradictions dans Benno Bokk Yaakaar y a des contradictions mais il faut distinguer lan mooy contradiction principal la contradiction principale aujourd'hui c'est le pouvoir en face li ñu uutale ak le pouvoir mais le fil du dialogue est rompu entre vous est-ce que yéen a ngi discuter ba tey entre leader entre responsable yow ak say naataango Khalifa ak Ousmane Sonko euh, on sait tous que voilà y a plus de dialogue entre entre vous bon moi jusqu'à la preuve du contraire ñun ñu ngi ci coalition Yewwi Askan Wi maintenant que les doxalee neneen ku ci nekk li ngay poser comme acte politique yow yaay ànd mais a woon boo xam ne da ngeen am lu ngeen lu ngeen lu ngeen déggoo woon mooy que ne présidentiel ku nekk dem celui qui est arrivé en deuxième tour en bonne euh, ñu bi ñu bi ñu bi ñu waxtaan ci ci ci taxawu Sénégal engagement boobu mooy engagement bi nga xamante ne Khalifa Sall moom la jël et cet engagement toogaguñ fenn ba ne duñ ko respecter et je considère que ne si demain en parti de Yewwi Askan Wi dem deuxième tour. yaakaar nga ñi ngeen am en face euh, respecté lu mel noonu. par rapport ak tout ce qui se dit par rapport attaques yi li ñu di yekk yëpp. waaw dama wax ne. le mal dama wax ne politique lu waaye def boppam ñu li ñu am mooy que on n'a jamais rompu un engagement nous avons toujours respecté nos engagements nous continuerons à respecter nos engagements maintenant li koy déterminer nag mooy fan la nga xamante ni fa la ñuy mujjee ñu ngi ci Yewwi Askan Wi on nous a exclusion ñun démissionné wu ñu Yewwi Askan Wi maintenant à eux de de tirer les conséquences de leurs actes